faatuk ki nga xamante ne moom mooy Dieynaba Traoré ñaari téléphone yi nga xamante ne moom la yoroon fekk nañu ko fële diwaanu Maris ñaari vigile ñu teg leen loxo ci moom mbir mu nekk nag lu yees lu am ci génnuk àdduna maanaam faatuk ki nga xamante ne moom mooy Dieynaba Traoré ñu fekk ko ñu faat ko fu nga xamante ne moom mooy ca filaawo yu Tivaouane Peulh l'observateur ci xëtu tayam biiti di talaata mu ngi xamle ni ñaari téléphone yi boobee soxna yoroon di Dieynaba Traoré ñu ngi ko fekk ci yi ñaari vigile yuy nekk fële ca diwaanu maris ñoom ñaar jamono ji nag teg nañ leen loxo ngir déglu leen ki nga xamante ni nag moo nekkoon faru na ba Traoré bi mbir mi dooree ba léegi nag ñi di policiers yi duñ ko soupçonné woon ba tax na sax déglu nañu ko bu ñu sukkandikoo ci suñu nattaango yu Les ko ñu ngi xam ne na ba mujj nañ ko denc niki demb ci sëg yu yoof